waaye nag tey ñu xëy gis ay vidéo yoo xamante ni vraiment yu daw yaram ay vidéo yu touché muy ki nga xamante ni moo di Wally Ballago nekk fee nga xamante ni moo di Umra di jooy franchement nekk vidéo yoo xam ne yu doy waar la fa seen a jeex waxtaan Pawlish Mbaye maa ngi lay nuyu. waaw ah, maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax a baax di la di la baalu àq yow ba tey gisante wuñu da di la baalu àq di Sénégal yëpp àq ah, di wax suñu président. suñu président Diomaye yàlla def la ko jàmm 4 avril bi nekk 4 avril bi gën a neex ci moom ci darajaay mu feete ko ay fii ay feeti feeti ci darajaay Seydina Muhammad di baalu ñëpp àq ah, yal na yàlla def jàmm yàlla def sutura ci Sénégal wa euh, euh, ñu gis euh, Wally jékki-jékki dem fa la nga xamante ni moo di Makka di def li nga xamante ni moo di Umra Umra bokk ci li nga xamante ni duma ne ca ay ponk lislaam la waaye bokk na ci lii gën a dëgëral sa diine bi nga gisee vidéo yooyu ban njàngat nga am. waaw xam nga yonent bi rek yonent bi leneen la surement nga tiim ko jugee dëkk dëkk dem siyaare bayti laay dem siyaare Seyduna Muhammad muy gën gi nga xam ne leeram la ñuy seetale jaam ñi xam ne Seyduna Muhammad suñu borom nee na kenn la ci moom suñu borom nee nañ ku ñu bind moo gën ku bind moo tax ku ko tagg dem àjjana ku ko yaakaar dem àjjana Seyduna Muhammad képp ku ko turee doom sa yàpp yaram aramal na safara surtout maa nga sopp si yonent bi muy Seydunaa Muhammad fi mu tëdd tey nga jógee fa muy dëkk dëkk mu def loo xam ne lu ko war la parce que jullit la def loo xam ne la ñëpp a ko rewee pour dem siyaare yonent bi ñëpp a bëgg dem siyaare Seydunaa Muhammad amaana tamit nga boole ko yóbbu say njege ñaale rafet lu rafet gën a weesu loolu lu baax gën a weesu loolu biiw màkk du caaxaan otelu màkk du caaxaan nga jël sa alal sa ñaq jël leen ñoom ñëpp yóbbu leen ci bërëbu Seydina Muhammad lii nag war naa jàngal ñu bëree bëri war naa yee ñu bëree bëri waaye def na lu ko war def na loo xam ne jullit noonu lay def bu yàlla mayee kattan may la doole amaan na ñi ngi am kattan te du du la sax jidda ba la yóbbu màkka def na loo xam ne jullit noonu lay def ak moroomu jullitam sa alal sa ñax nga jël sa alal nga jël lu mu doon ànd yow yóbbu la bërëbu Seydina Muhammad loolu mu ngi lay jàngal àddina li la woon àddina li la woon ni àddina amul solo àddina képp ko jàppee muy kër yaa ngi nax sa àddina képp ko jàppee du jeex yaa ngi nax sa lii nag war naa tax ñu képp kuy nit ci àddina nga mën a changer ngay wax lu bon di jëfin lu ñaaw di tere di di di teg ci nit lu bon di wax ci nit lu ñaaw a ñaaw di seedee nit ci lu di jëf jëfin ku bon di wax wax ju bon suñu borom yóbbu la ba ba béy ci laay si nga siyaare Seydunaa Muhammad képp kuy nit war nga am xol xolu jullit war ngaa mën a changer bu wér-wér d'accord mais ñu bari di leen jaaxal mooy Wally par rapport ak âge bi mu toll ak tey fi mu toll ci musique ñu bari yaakaaroon ni tey Wally day dem ba ba bàyyi wala dem ba âgé doog a dem fi la nga xamante ni moo di bërëbu Seydina Mohamed mais par rapport ak âge am fi mu toll nii mu teel ko def. waaw xam nga àddina kenn xamul sa dund xamul sa dund ba xam man wax ci may wax dina egg wax ci may jëf jox ci may jox dina egg na ku sa bopp nga nekk mag ak nekk xale ak bi amul xale amul mag parce que Seydina Mohamed la. amul âge amul xale amul mag parce que booy demee ba siyaare Seydina Muhammad rek amatoo âge sa àddina parce que nag nit ñi ñi ngi wax sama dem ba jëm mag te xamul mag ni ko fekkee nit a màkk bay bëgg a dee te demul a ngi dund a dee yor ay yàlla moo lay jël yóbbu la suñu borom ku ko yóbbu rek dala faa woo Seydina Muhammad la muy gën bind amul âge yonent bi amul âge yonent bi liir yaa ngi dem ñi fa juddoo xanaa amul âge yonent bi la muy gën gi bindeef muy Seydina Muhammad yonent bi la yonent bi amul âge Hmm. ku mën a dem na dem. mais demuk Wally tey ñu bari jàng ci que ni euh, fee mu dem doon na foo xamante nii daanaka day yar nit doon na loo xamante ni day jàngal nit àdduna parce que tey su nekkee da nga daan voyage takk or takk jamaa tey nga dem foo xamante nii daanaka euh, du ma ne xaw ma 7 mètres percal xaw ma 8 mètres lay topp mu mel ni que ni loolu day jàngal nit àdduna aussi. ah xam nga yonent bi mooy saar yonent bi Makka mooy saar yonent bi nga xam ne koo xam ne leeram la leeram si Seydina Muhammad la may gis ci ginnaawam la gis ca xam ne ko koy saar Seydina Muhammad yonent bi yonent bi moom rek mooy saar ci àddina képp koo fekk ci bërëb bam boobu muy nga nekk Sénégal nga nekk France nga nekk Makka mooy saaru saar yi mooy Seydina Muhammad foo am la saar yonent bi rek mooy saar tey soo fay dem juróom-ñaari perkaar moo lay topp nga tënjoo ko dem siyaare bayti laay siyaare Seydina Muhammad képp kuy nit nga am xol di jullit boo téemee naa Seydina Muhammad seera war naa taw war ngaa xam ne yonent bi moo tëdd foofu ay milliardaire ku ñàkk ku am ñëpp a gi fa doo xamee ku am ku ñàkk doo gis mukk mukk ñu takk ay or ay jamaa di la fob naan la kii mooy kii mooy siyaara yonent bi rek ñu tëj ko waaw suñu paree ñu génn ko ñëpp a yem ñëpp a yem fi ngay dox la dox li ngay sàngo la nit ñi sàngo li ngay fi ngay fi ngay fi ngay fóon la nit ñi fóon fi ngay sànnee jamra la nit ñi sànni jamra nga xam ne yonent ay saar amul foofu mooy saar xam ne bërëb bii ku fa dem war na laa jàngal àddina war xam ne àddina jeexagul nit ñee jeex àddina jeexagul de ku ku sa àddina tukki na tey gën gi mbindeef tey la ñëpp bëgg a dem muy Seyduna Muhammad mais ñu gis ni Waly yemul ci loolu jël na ay jege jegeñaaleem donte ñi daanaka ña dem ay ndaw lañ parce que su ma ci waxee lu Louraas ak ñeneen ak ñeneen mënoon na leen a jël yóbbu leen ci leneen mais daleen na indi ci kër gi nga xamante ne mooy kërug dëgg indi leen fii dem bi mu jël yóbbaale ay jegeñaaleem man jàngat nga ci am. parce que Waly xam na ni lii mooy dëgg xam na ni bërëbu Seydina Muhammad bi mooy dëgg bërëbu yonent bi mooy dëgg def na lu rafet. def na lu baax ku la war yonent bi rek wan na la suñu borom ku la yóbbu bërëbu Seydina Ahmad rek wan na la suñu borom lii rek war naa jàngale lu bëree bëri mi ngi leen di won di leen jàngal mi ngi jàngal boppam tamit àddina mi ngi xamal boppam àddina xam ne àdduna mu solo ñuy waxante lu rafet di jëfante lu rafet di di di di di dund lu rafet képp ku siyaare yonent bi te changé war jàpp ne demoo demoo siyaare Seydina Muhammad Mauritanie nga dem yonent bi ku fa jógee suñu borom war naa génne ci ay yoo xam ne tey bu dee da ngay def lu bon di ko bàyyi bu dee da ngay jëf lu di ko bàyyi bu dee da ngay xool lu bon di ko bàyyi bu dee da ngay gémmiñ salaamin lu bon di nga ko bàyyi parce que Seydunaa Muhammad la muy gën gi bindeef képp ku fa jógee war ngaa mën a changé bu wér-wér boo changé 100 pour sax war ngaa mën a changé tuuti ne man damaa siyaare gën gi bindeef muy Seydunaa Muhammad mën nañoo xaar waale bàyyi way bàyyi way ci lay dund ci lay teral si lay dimbali jaam ñi ci la yóbbee jaam ñi màkk kon bu ko bàyyee jaam ñi mu yóbbu doon ñu dem di màkk waaye du lu bon waaye du lu yées si lay teral ay waajuram ci lay dimbali ay xaritam ci lay dimbalee fayam du lu bon gémmiñ génn saami lu ñaaw teg ko ci jaru nit tiim nit di wax ci moom lu amul waale wayam yëpp day wax ci nit lu am di jëf nit lu am di jëfee nit lu am waaye mi ci la dimbalee nit ñi ba yóbbu leen màkka nit ñiy dem di wax ci ni lu bon di ci wax di tiim ni di ko wax ci lu ñaaw te yëgoo ko di tas seyu jàmbur yi di yàq deru jàmbur yi di def lu bon di saaga nit ñi di xas nit ñi di wax ci ñu bon ñooñu laay wax mais képp ku jógee màkk rek war ngaa mën a toog xoolaat sa toogaay nga xam ne yonent bi nga dem jaare ji billaahi képp ku fa jógee def lu ñaaw demoo jaare yonent bi des fois nga des fois nga jël avion dem ne ne màkk nga jëm nga nga jëfin jëfin goo xam ne tiimoo kaaba gi yow barke yaa ngi tiim yeneen kaaba yaa ngi jëf yeneen kaaba yaay xool yeen kaaba Seydunaa Muhammad képp ko fi jógee di nga changé xool sa melokaan xool sa jëfinukaay xool sa doxin xool sa waxin parce que yonent bi nga changé yonent bi nga dem siyaare mooy Seydunaa Muhammad parce que yàlla wax adam denu mim del leeram lañu sey dina jaam muy Seydunaa Muhammad kunu bind yoo yaa gën kunu bind yaa tax kunu bind yaa raw ku ko sopp dem àjjana ku ko tagg dem àjjana ku ko yaakaar dem àjjana ku ko tuddee doom sa yàpp yaram aramal na safara muy Seydunaa Muhammad nga xam ne leeram lañu sey dina jaam ñi de mais dem Wally bi li ci gën a jaaxal ñëpp tey mu doon vidéo yoo xam ne gis nañ ko muy jooy yi nga xam ne Wally doon na ko jooy di ñaanal ki nga xamante ni moo di yaayam ak papam ak magam jooju nga xam ne moo di moom mi bi nga seetaanee vidéo yooyu noonu ban yëg-yëg nga ci waaw sama yaram dafa daw sama sama xool dafa tooy parce que nag ku nekk war ngaa tiit sa bopp muy ñetti tiit dafa war a moo Wally dafa war a tiit ñetti tiit la war a tiit dafa dafa jooy ñetti jooy jooyal papaam jooyal magam moom it war naa jooyal boppam parce que ku nekk rek bés bii du jaas bés bii du romb kenn ay milliards nga làqatu nga dugg ci kër tëju ñu nga yor ay milliards sa néeg ñu tëj la ci oto ngay daw fii ba Màkka di daw fii ba Europe di daw fii lii du jaas kulli nafsin saa yu xatin mawti bés bii tey mu ñaanal suñu borom bés bii tey suñu borom won ko ni yaayam génn na àddina da ngeen ni daaw yaayam mi ngi fi da ngeen ni daawati géej magam mi ngi fi da ngeen di daawati géej géej papa mi ngi fi tey tey ñoom ñëpp gisoo leen yaa ngi wax dégguñu la yaa ngi leen di ñaanal gisuñu la yaa ngi leen di wax gisuñu la yow rek yaa mën a taxaw ne maa ngi ñaanal sama yaay yan na ko suñu borom xaare àjjana yan na ko yonent bi yan na ko suñu borom jéggal yan na ko yonent bi taxaw nga xam ni lii mooy dëgg tey ko doon gis ba gisatoo ko tey nga dem ba di ko ñaanal te war ngaa tiital sa bopp yow war ngaa jooy sa bopp war nga xaale sa bopp nga xam ne dee du jaas ku leen dee du jaas fu mënti dem ci àdduna milliard nga ñàkk nga am nga yor ay milliards munoo fexe ba doo munoo fexe ba doo génn àddina te boo deewee lii mu sangoo lañ koy sàng mu juróom-ñaari perkaal lañ lay sàng lii mu def nii juróom-ñaari balaan la sangoo xool suñu borom mooy dëgg lii mu def nii dafa rafet lii mu def nii ñëpp a ko ñëpp a ko kontaante lii mu def nii toog nit lay li lii lay ñaanal suñu borom dem ba am doom sa doom dina fàttaliku dem ba ci bërëbu Seydina Muhammad yóbbaale ay nit dem ba di la ñaanal tey jaaga fi mu tëdd xolam day sedd papa Thione fi day sedd yaa maam mu tëdd xol kii am magam fi nit lii lay ñaal doom nga génn àddina dem ba sa sa doom am am teraanga yóbbu ay nit ñu dem dëkk jugee dëkk dëkk dem ba toog siyaare Seydunaa Muhammad a ki la kii nga sopp ki nga bëgg ki nga yaakaar muy gën gi mindeef mu dem ba ci bërëbam toog di la ñaanal kon jaaka fi mu tëdd xolam day sedd lool képp ko yaay te bëgg Seydunaa Muhammad sa yaay génn àddina wala sa maam génn àddina wala sa kilifa génn àddina nga dem ak foo ko mën a ñaanalee tey mais ñaan gi mooy ñaan gi gën a rëy muy dem ba bërëbu Seydunaa Muhammad ñaanal say waajur loolu la ñëpp di ñaan na nit ñi xam ni waajur du caaxaan. dëgg la koorul woo téléphone jotatoo ko boo yeewoo nga naan sama yaay gisatoo ko ana sama papa gisatoo ko ana sama mag gisatoo nga xool numéro am di woo dugg baat vocal nga romb taal sooto nga xam ne fii ma fii ma romb ni sama yaay fa tëdd munoo wax dimbal leen ma suli leen ko ma xool ko. may leen ma ma gis sama yaay mu may leen ma wax sama yaay téléphone may leen ma gisee nag sama yaay loolu lépp amul ci àddina kon nag war ngaa reculer xool sa bopp xool sa toogaay xool sa melokaan xool sa jëfindi nga xam ni dee da ngay dëgg na nit ñi laabal xool yi li waal def def na lu rëy rëy def na lu rëy na lu rëy rëy tey tey tey yaayam bëggu tey yaayam bëggu bëggoon na sutura sutura goo xam ne moo tax deem gi sutura la deem gi sutura rek la mm-hmm. mm-hmm. tey bu waaye dee ba tiim yaayam di ko ñaanal bay tur xéwal nañ ko gën a suturaal nañ ko gën a wormaal nañ ko gën a jàppale parce que kii tëdd foofu Seydunaa Muhammad kii tëdd foofu mooy gën gi mbindeef mi ngi jooy jooy boo xam ne dëgg la ci moom mu ngi jooy jooy xolam lii ñu ko def ni neexu ko te xam naa ne bëgg ko. parce que ñu ngi xëy gis ñu ni ñu bari naan waruñu woon a filmer waaw naan waale célébrité moo tax ñu filmé ko ñii naan bërëb boobu du boobu képp ku fa dem Seydina Mohamed mooy benn star bi est-ce que filmé yi jaadu woon na. ko lii ñu ko def ni bëgg ko parce que wormaal na boppam ba wormaal yaayam jële ay nit yu yóbbu leen pour ñu ñaanal ñoom seeni yaay wala ñu ñaanal seen i papa wala ñu seen i bopp nanu ñaanal ñoom seen yaay wala ñu ñaanal seen kii mi ngi def liggéey mi ngi ñaanal yaayam mi ngi ñaanal ay waajuram Wally mi ngi ñaanal papa mi ngi ñaanal yaay mi ngi ñaanal ay magam mu ngi ñaanal képp képp ñu xam lii lii mu def nii lu rëy la lii mu def nii du ndaw mel nañ ko gën a wormaal nit buy jooy di ñaanal ay waajuram di jooy xol muy bërëb bi muy jooy muy bërëb Seydina Muhammad waroo ko vidéo ba bi vidéo bi di tas wala muy génn parce que lii mu def nii dafa rëy ñaanul kenn boppam la ñaanal ak yaayam kon nit ñi nañu lii waa li mi ngi leen di jagal àddina ñaan leen seen waajur yi ñaan leen seen i papa yi ñaan seen waajur yi ku dem ba bërëbu seen naa xaman war ngaa tal leneen war ngaa leneen muy gën gi mbindeef boo fa demee bala nga faa demaat tey nga suñu borom jël la mu jël alalam yóbbu la nga war a toog ñaanal sa bopp ñaanal sa waajur waaye nit ki ñaan waajuram di ñaanal xol ñaan woo xam ne ñaan xol la waaye li mu ñaanee dëgg la ci moom taw dëgg la ci moom ñàkk waajur dafa metti surtout ñàkk ñaari waajur ñàkk sa mag ñàkk sa yaay ñàkk sa papa tey mu dem tey xoolu leneen mi ngi toog ànd ak yéen toog di sukk di ñaanal su waajuram nga la may dakk ngeen bàyyi ko mu eggali li muy def parce que li aj la lii lii lii lii lii bërëbu Seydina Muhammad la nañ ko war maal li mu def nii def na lu rëy rëy yal na ko yaay yaayam yal na ko yàlla xare àjjana ak yaay yëpp ak papa yëpp ak maam yëpp ak képp kuy nit ngay jul yal na la suñu borom xaare àjjana li mu def def na lu rëy rëy li mu def def na lu rëy yal na ko yal na ko suñu borom fay yal na ko yonent bi fay yal na ko Seydina Ahmad gën a fay te ci naa xamat ñu ngi sax ñu ngi sax ci ci délégation bi gis naa ci ku mel ni délégué ah, kon dafa génn ah, kon yal na ko yàlla soppi yal na ko yàlla yal ko yàlla gën a soppi yal na ko yàlla yal na ko yàlla soppi tey bu ñu dee ba yóbbu la bërëbu Seydina Ahmad amaana boo ñibbisee war ngaa mën a soppeeku war ngaa mën a jëf jëf jëfin ku baax war ngaa mën a wax ju baax war ngaa xool looy wax ci nit ci lu baax war ngaa seede nit ki lu baax war ngaa xool looy defati na ko xool lu baax parce que yonent bi ku fa jógee war ngaa mën a changé jour boo jógee ci yonent bi changé woo demoo ci yonent bi Mauritanie nga def wala nga dem ji wala nga dem Gambie bisu ngoone ñoom ñëpp loolu waaw bisu moom am bisu moom ajeem ba muy dem màkk bari na waaw képp ku dem màkk loolu laa yal na ko liggéeyam gën a taxaw yal na yal na ñuy dem ay màkk ay màkk yal na yàlla gën a taxaw si yonent bi bu ñu jógee ci yonent bi yal na sa lépp gën a dox yal na sa lépp saa si darajaay Seydina Muhammad di la ñaanal kenn yóbbu yal na ko yàlla gën a taxaw yal na ko yàlla gën a mën a dooleel yal na ko yàlla gën a mën a suturaal muy waa ni am na solo mënuñ ci woon ba ñu ñëw ah Pawlish ñu ñëw ci déclaration bi nga xamante ni président Diomaye def na ko démb ah <clears throat> bi muy yëkkati ay kàddu dem na sax banaan ñi nga xamante ni dañoo yor alalu réew mi tey war nañ leen a topp auditer leen bi nga dégloo kàddu yooyu ak discours yooyu Liss yaa ngi reere ci président Diomaye président Diomaye day li mu bëgg a def ci dëkk bépp yal na ko yàlla may xolam mu mën koo eggali. discours bu xeera la teg discours boo xam discours normal la. discours woo koŋ képp ku yoroo xaaj yaa ngi tiit waaye nag des fois ah, ñu waxtaan ah. moom it na jël matuwaayam yoo xam ne des fois nit bañ ba sosol ko. ne xaalisu état bi loolu dañuy waxtaan sérieusement des fois nit ba sosal ko ne xaalisu état la yor te yorul xaalisu état te kooku buy wax nay ni ay preuve yu leen naññi mu won ko ay preuve yu leen naññi ne li xaalisu état la yor des fois nit jéppi nit nit yore këram otoom bu rafet këram gu rafet ay dawal ay otoom doom nekk fii sa papa ñu ne oto yi yaa ngi koy ñàkk yéenee kii la bon sosal ko ne xaalisu état te yorul xaalisu état moom it na préciser ku képp ku fi indi te na indi lu leer képp ku sosol nit boo sos bi leerul dan lay jàpp looy indi ci nit na leer naññ looy wax ci nit na leer soskat yi dina bari nettalikat yi tey la ñuy xool ku am ngor ak ku amul ngor ci lii jomaay wax da leen di jàngal àddina lu jomaay wax da leen di jàngal àddina tey la ñuy xool nit ku am ngor ak ku amul ngor. mais est-ce que gars yi dañu commencé la wala ay kalandoo wàcc kat kat yi. déedéet des fois nit ak liggéey liggéeyam te alalam la des fois nit ak suñu borom xanaa xamoo yàlla des fois yàlla dina bind nit ku dul ñàkk yow. des fois nit ñi des fois nga bind nit ku dul ñàkk ci àddina des fois suñu borom cëral la cëral goo xam ne tey booy tëdd ci lalu hôpital ñi naan tëdd muy dox amul ngay tëdd ci lalu hôpital di fanaan ci lalu hôpital sa yàlla moo la cëralee loolu yàlla moo la may loolu des fois nit a ngi naaw te daraam dox nit a ngi fëy fëy te daraam gi dox nit a ngi tëdd ba suufu lalam tëdd hôpital loolu ñaanu waajur la ak liggéeyu ndey ak barke baay des fois nit a ngi tëdd ci lalu hôpitalam léppam di dox tëdd muy dox toog muy dox dox suñu yàllaa ko yoon waaxu yàllaa ko yor ñàkk yàllaa ko yor des fois nit ak liggéey ba génn àddina ñàkk la ci ñàkk lay dëkkee ci àddina. d'accord waaye nit ñi nañu xam ni des fois nit sosol nit ne lii moo ko ci état la te moomul état moomu ko. di tegi bañ nit di tegi yor ay milliards nit jépp ko jépp koo xam ne ne xaaral ma sosal ko ne lii lii la te du loo nit koy sosal nit nan ko fexe indi ay preuve yu leen naññ loolu mu def tey képp kuy semeur wala ngay liggéey kat wala ngay nettali kat am nga liggéey boo xam ne sa liggéey la waaye looy nettali ak looy wax na nga xam lu leer a leer des fois ni da ngi tabax këram te ay millions nga foog ne xaaj état te du xaalisu état te nit ko am ngor ci lii lañ koy xamee nit ko am kóllëre ci lii lañ koy xamee des fois nit di la may ay xaalisam ñu ne la lii jomaay wax tey ku indi lu mu wax waxoo leeral la parce que affaire état la leeralal la. waaw parce que dane parce que dane parce que dane lépp loo fa indi. leer dane lépp police su dee état état état état état état bu état bu yéeme. maanaam moom dane dane moom lépp luñ fa indi. képp koo xam ne yore nga xaalis dinañ xool xaalis bi parce que nee na am na ñoo xamante ne tey Pawlish Mbaye day yor ay milliards. benn bu benn oto bi mu jël ko def ko turu guy gi beneen bi mu jël ko def ko turu idi beneen bi mu jël ko def ko turu am léegi nag nee na yooyu yëpp dañ koy lijjanti su nekkee xaalis boobu xaalisu état la ñu xool dara loo xam ne dañ la ko compal li ci ñu delloo ko ci askan bi waaw xam nga lii nit xam nga des fois man lii exemple maa ngi dawal sama oto tam xaalis sosal te man xaalis dof laa am dama ne sama xaalis dof laa ko amee xalaatuma xaalisu gisuma xaaju état aw ma dara état wax waxi dof laa ko amee kese te waxi dof fi nit ñi dañ may nit ñi dañ ma koy fay ma ciy liggéey te état fayuma dara fayu ma dama bëgg leeral nit ñi des fois nit sama rombu dof yi nga raw leen nga foog ne xaaj sama xaaj état laa ko jëlee ba ñu boole ma te ku ma boole ku ne wala ngay wax ci ma lu ne di nga indil preuve moo tax may wax lu leer nañ naññ soskat yi dina bari waxkat dina bëri yàqkat dina bëri képp ku bañ nit tey nga xuloog moom mu yore ay million jàpp ne bés dina ñëw mu sosal la waaye koy sosal na fekk sos bi leer bu leerul na la tëj police ku indi nit na indi lu leen nañ d'accord keroog génn Macky Sall bi doon génn bu daw yaram doon génn boo xam ne képp koo xam ne yor nga nguur wala képp koo xam ne yaa ngi ci pouvoir ah yaa ngi wax naan bésu dee am na waaye bés boobu it keroog jàngal nañu bari de. bés bi Diomaye war na ci jël Sonko war na cee jël leçon président war na cee jël leçon war naa tax ñoom ñu liggéey ba dee war naa tax ñu ñu ñu liggéey ba dee mais nag Sénégal nga dafa naqaree liggéey nañ ko may mu jël temps may ko deux ans wala trois ans parce que réew mi def ko du yomb xanaa xamoo guy gi ah, am na nit ñoo xam ne ah, ah, am na nit ñoo xam ne suural leen du yomb ay biiru golo ko jigéen la ñu yor suural leen du yomb état bu wàññi woon ceeb di ko jaayee fukki dërëm ñoom dañ naan suuruñu parce que seeni biir ñoo xóot. genre Ibrahima yi. seen biir ñoo xóot dundal leen yombul teral leen yombul parce que ay lekkan lañ ay biiru ginaar kooku lañ doon loolu lekk lañ koy bëgg léegi jàpp nañ ni ñoom état defatu te état yi liggéey bés bi Macky sàll dem bii mu dem damaa jooy parce que booy booy sa plaque lan lañ ci defoon. président. ngay génn yore plaque yu bu kenn topp ko ay policiers topp ñu ko. ay nit rek a ko topp ni yuuxu police yi taxaw xool Macky di dem nii. barki nga xam ne nga xam ne nga xam ne nga xam ne ku ni doo dara rek jàpp ne yow doo dara. xool barki alxuraanu karim mot jomaay. ci yàlla nekkoon ci corps ki nekkoon corps prison tey. tey moo nekk ci ko tey biir pale di fa ndogo di fa xëddee di fa jàppoo di fa jullee di fa reeree di fa defee lu ko saf tey. li saa ngi wax lu garaaw keroog Macky Sall bi muy dem gendarme ma topp ko kenn topp. muy dem amul benn motard bi ko topp ay vélo ko topp scooter ak ay vélo ñoo ko topp. ak ak cenkal ñoo topp Macky Sall jomaay tey buy génn di dugg buy ji bitig bi ay 14 mataara ko topp nga xam ne ku ne doo dara doo dara ba muy génnee tey Macky Sall toog ni def mm. ni loxoom ay ay maire ko topp ak xale yee ko topp gis Macky Sall gënoon a yomb Macky Sall Macky Sall dem bay nuyoo nii Macky Sall pour mu nuyoo la problème la bu la policier yi ne eh dégage sin nga wax ñu ne la silence fekk doo gis waaye dem ba Macky saal dem ba nuyoo nga xam ne nguur sa nguur jeex na sa lépp nga xam ne kundi doo dara nga dem kundi doo dara de Macky Sall ba muy dem di dem Koloba di romb Koloba la ay vélo ko topp ak ay ay ak ay senkal ak gisoo motard ba ko topp amul wee da ko booy dem booy booy dem a gën a métti wala booy dugg dugg gën a neex ci àddina dem a gën a métti na dem boo xam ne tey xoolal Macky ñi ko topp tey gisoo fa géwal géwal ñi yaa xam te nga dem yow ñi ngi doon àndal dañuy am ñàkk pexe rek bëgg na nga gën a dem yow dèjà Macky ba muy dem ba ma jaari Colobane billaay ay ay su ma nee ba gi ay ci kooba Macky Sall ay pousse pousse ay boromi pousse pousse topp ci ginnaaw ay pousse pousse ay otondaral ay senkal xam ne nguur sa nguur jeex na nga xam ne addina da ngay dëgg ni doo dara jàpp ni doo dara Macky koo fa am tey Macky bu doon ñëw ci koñ bi tey koñ boobu tey suba lañ fay ñëw xool ci ci xool koñ bi ni mu tëddoo xool koñ bi ni Macky tey ba muy ba muy génn nga xam ne <laughs> nga xam ne président <laughs> sa dugub dina waaye sa génn bu sa génn lii dal Macky Sall dina tam ñu bëree bëri seen génn du neex de Macky ñaari oto ko topp oto moom ak ak ak palaagu DK Macky sol lu weex tàll bu taalee loxoom doo dégg ay yuuxu doo dégg péep péep ay ay pousse pousse di ko topp ay cinquante Macky bu demee ba ay vélo di ko nga xam ni koo baa Macky amul mu mel naan maa génn nga xam ni ku ni doo dara dara yal na ko yàlla may jàmm nga xam ni nguur a ah, yal na ko yàlla suturaat rek. ay jërë ngeen jëf mbokk nga xam ne yéen a àndoon ak ñun dañu suivre di leen jox daje suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen jëf